ak tontu lañ daal di nemmeeku gannaaw ba leader parti Pastef bi daal di génne def déclaration doon jannoog ndawi parti mbile ay leader opposition bi daal di génn tontu ko ci point yu nga xamante ne ni moom la daal di yëkkati ku ci mel ni Bougane Gueye Anta Babacar Ngom Yoro Dia ñoom ñëpp daal di nañ dellu si bu baax a baax kuy mel ni rek kuy fàttali Ousmane Sonko ay waxam ak li nga xamante ne ni moom moo ko tax a yegg tey ci nguur gi ku ci mel ni Anta Babacar ngoom di wax waxu désillusion ci wet ga Bougane Gueye Dany sax mën nga def ay promesse wante boo xasee ba egg ci nguur gi faaw rek nga xoolaat anam bi nga xamante ne ni noon ngay waxee ak wi moom mi li nag daal di yëkkati ay poñ yu bëree bëri ci waxtaan bi mu amaloon démb ak ndawi parti Pastef yi bokk na ci digganteem ak taskatu xibaar yi loolu waral ba kii di buggaan Gueye Dany nekk patron de presse groupe des média di ko fàttali rek ne bi mu nekkee woon ci ay jafe-jafe digganteem ak kii di président Macky Sall taskatu xibaar yi nga xamante ni tey ñoom lay daal di xas ñoo ko ci génnee woon te mu jàpp ni mënul rek def lenn li mën a liquider boobu le presse docteur Yoro Dia mel rek ku koy feelu ca wet ga di ko xamal ni lépp lu ëpp daal di tuuru te nguur du rek li nga xamante ni nii lu la neex daal di wax faaw rek nga xool anam bi nga xamante ne nii noonu ngay daal di doxee wante bu ñu sukkandiku ba tey ci Yoro ja dafa mel ni rek Ousmane Sonko xamul lan mooy fonction premier ministre